jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy teewlu ci BP Actu ak Lutte TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam di amaat mbégte ak contentement et comme j'ai l'habitude de le dire à chaque fois notre seul plaisir c'est de vous servir c'est de vous faire plaisir raison pour laquelle ñu ñëw seet si kenn koo xamante ne ni ndono la ci li muy def waaye yaa fuusu si toogu ci rek di xoole daf ci liggéey jàng ko ba suñu borom teg ko fi mu ko teg tey muy Modou Mbaye bu alaaji Bekaay Mbaye jëri ngoone Malobe Samba kulima ca singi ndaat ma faali kumba ndaat sa maam mais mbaa taxoo waaw ah, maa gën a tëx ñëpp maa ngi lay siyaare bu baax a baax a baax Omar Diop mon frère di la bëggee yàgg naa kontaan ci jàkkaarloo ak doomu aadama mais jàkkaarloo yu ma jàkkaarloog nit yëpp bii moomu ci gën a neex parce que sama raq laa jàkkaarlool ki ma bokkal secteur laa jàkkaarlool ki nga xamante ne ni xam naa ne bu bëggee métier bi man maa tax kooku laa jàkkaarlool mbégte laa am ci jàkkaarloo ak yow dëgg yàlla ak nuyu waa BP Actu ak waa Lutte TV yëpp mën naa dindi masque bi yaakaar naa parce que c'était juste pour xamal pour pour lancer waale message ci ñu moytu li nga xamante nii moom mooy doomu feebar bi nga xamante mi ngi ci àdduna maa ngi lay nuyu. nga nekk booy boo xamante ne nii bi ngay ñëw ci sa liggéey wax nga ko ci benn émission nga ni. li la ci gënoon a métti nit romb na la nga yor sa micro mu ne la sa papa daf ñu loo bëgg a forcé nga gëm ko rek téye ko la moo nekkoon eh, doon motivé loolu noonu wax boobu bokkoon na ci li ma doon motivé sa papa daf ñu lay bëgg a forcé rek may ñu suñu jaam ba pare ci saaga woon ma ma ni ko waan waa baal ma àq. ma nekk ci nag wax ma koo wax kenn loolu wax boobu dama ko garder woon ma ni kii comme que moom am na lu mu gis ba wax ma lii man nag comme dugg naa ci métier bi dinaa ci rey sama bopp ba moom dina ñëwaat ci man yàlla dogal na animé naa rajo moom mu ñëw woote ci émission rajo bi ne ma fàttaliku nga bis sàngam ak sàngam ma ne ko waaw mu ne ma maa la waxoon nangam maa ngi jégalu du courage yaa ngi ci yoon bi góorgóorlul gënal gënal jàpp dina gën a baax boobu la affaire yi daal motivation bi xam nga lan la woon gis nañ ni papa mi ngi ci. te it am na fu mu ko yóbbu ñu ne nañ ci nekk yóbbu ko fu sori fu gën a sori fi ko papa yóbbu parce que xale boo ñëwee fekk mu am fekk mbir mu am fu mu yam da ngay ñëw fekk fexe mu jéem ko yoox loolu kese la woon. loolu kese la woon yaa ngi fàttaliku premier jour bi ngay ko micro di reporter lamb. waaw. ban jour la woon. combat Sa Thiès Tonnerre. mais boobu bokkul ak combat bi la sa papa bàyyiwee xel yow. déedéet bokkul ak combat bi ma sama pap bàyyiwee xel parce que sama pap bi ma bàyyee xel tamit teewul man daaw ma reporté man dama doon def bantamba di ko tournel di ñëw laaj mbër yi dugg ci turbine yi def bantamba ñëw jox ko moom mu def reportage mais combat bi ma njëkk a toog ma ne mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bi ñaari mbër yaa ngi lewtoo Sa Thiès ak Tonnerre la woon set bi nga ñibbee sa kër nga toog combat bi jàll mu leen yow reporté nga sa dina dem yow loo yëg guddi googu waaw bi ma set <laughs> bi ma reporté combat boobu bi ma ñëwee sañ waa dañ ma doon reetaan <laughs> yow parce que ci reportage bi maa ngi toppandoo sama papa mais comprendre wu ma woon ni dafa am technique la xaw ma ko woon dama doon yooxu au moment où yooxu fa waru fa woon wax nànk au moment où damaa war a yooxu ma wax nànk waaw ndekete technique la dafa am fooy yooxoo am fooy waxee nànk am fooy waxee ci suuf am foo xam da war a noppi bàyyi mbër yi bëri yooyu yëpp comprendre ma ko bi ma njëkkee def reportage bi jël bi am ba passé lu mat cinq secondes ma soog a yooxu ma di laa ilaaha illallaah sama jeune frère ki topp ci man net dafa rey bay bëgg a dee Pa Modou Mbaye dama waay moo waay moo yaay gëree <laughs> affaire yooyu ma ni ko baax na mu ne ma noonoo baaxul mais war ngaa mën a def lu baax après noonu ma nekk ci Sa Thiès laa njëkk a def reportage boo xamante ne nii jàll na à la ci sama émission bopp mu nekkoon grand combat avant suma père Malick Thiandoum di ñëw à la Sen TV avant grand combat boobu yow amoon nga sa émission bépp bu tuddoon Mbër Gale. Mbër Gale waaw émission boo moo doon émission mbër yi ci la ma ci la ci la ma sax Sénégal ñu bari xamee parce que ci laa dem ci ay gox yu bari ci Sénégal seeti mbër yu bari ci lañ laay dem ci gox ñu ne kii kan la ñu ne moo ñooy doom boobu looloo doon sama adresse kii mooy doom Bécaye Mbaye bi nekk euh, Sen TV. comprendre nga yàlla sunu borom di dogal na liggéey ba am ci suñu turu bopp léegi da ngay romb ñu ne dootuñu wax doom Bécaye bi macha allah. mais yow da ngaa ñëw bokk ak génération waa 2009 su ma waxee 2009 Boy Niang Ama Baldé Lac Rose Sa mais à chaque fois ñu bari dañuy wax Modou mbay ak Boy Niang ay mbokk lañ ndax booy Niang mooy mbër. loolu comme ni nga ko waxee ni noonu la demee dama bokk ak ñoom génération duggandoo ak ñoom ci làmb daanaka parce que Boy Niang ci Boy Niang la ñuy nga tudd ah bu doon lagrose ma limal la ci combat am yu ndaw parce que lagrose bi fa yow maa ngi yow a àndoon defe naa bi ñuy support bi ñu koy supporté ji muy bëreeg Ronaldo fii. Ronaldo mas Canard. longooru touche bi. longooru terrain bi Ronaldo mas Canard ko grande carte ñëpp di jooy. génnee balam di zongale génnee balam di lagrose xeex ak moom mbot ko. wala mbot ko woon. da ko door mu wàcc mu mbot après mu mbot ko. yaa ngi fàttaliku lagrose doogay. ba këpp. ba di këpp. yaa ngi fàttaliku Lac Rose su lay dop numéro 2. gaa yi ne Lac Rose sa mbër moom. yaa ngi fàttaliku Lac Rose Pape yaa ngi fàttaliku Lac Rose Mame Balla Lac Rose Aliou maanaam ñoom ñëpp li tax ma téye seen ay combat noonu parce que dama bokk ak ñoom génération Boy Niang looloo ma dal ci moom ni ma dal ci Lac ma dal ci Boy Niang parce que Boy Niang combat am ak Mbis Mbis combat am ak Akon ah Brise de Mer. presque carrière am combat am yëpp saa kajoor combat am yëpp seetaan naa ko benn lanu mais bon Modou Mbaye fii la far fee far ay wax la rek ay wax la te yaakaar naa ne àdduna mi ngi ñuy àtte quoi l' avenir moom mi ngi jugé parce que man ak ñoom ñoo bokk milieu bi ñoo bokk fi ñuy liggéeyee li sam papa amoon ak ñoom Yaxya Diop Yékini ak ñoom Mike Tyson man loolu laay ñaan yàlla am ko ak ñoom yow nga am ko ak ñoom ñun ñu ci nekk ñëpp ñoo am ko ak ñoom mooy lan mu doon une des relations yu rafet. yoo xamante ay relation humaine lay doon yoo xamante ne yu rafet la ñu bokk ndey bokk baay àndandoo liggéey jéem a jaay làmb ji li tax liggéey jéem a jaay làmb ji dama doon gis père Bégaay da doon ànd ak Yékini di dem France du voyage làmb du voyage dara mais pour dem jaay làmb parce que day am événement bu fa am boo xam ne dañ ne père Yékini lañ soxla Yékini ne bu may ñëw il faut que ma ànd ak Bégaay comprendre nga mu nekkoon di relations humaines yu rafet yoo xam ne dañuy ànd jaay làmb man loolu laa bëgg te yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñëpp ñu ànd ko ak champion yi allahuma amin nga jékki-jékki yoon bi yaatu lool nga ciy bay sa waar def ci lu ama am solo ñu dem ba benn instant mu mel ni père dafa xaw a reculer parce que mënul woon a taxaw parce que Modou Mbaye mi ngi ñëw ak doole nga ñëw ba téye Bantamba indi sa slogan bopp c'est le Bantamba c'est le Bantamba c'est le loolu liggéey la de te noo ko liggéeyee. topp ci ay tànkam parce que moom moo moom moo def Bantamba ba tey ci rythme bi fi père Bécaye Baye la ñuy dox bi mooy innovation. création toog xool loo xamante ni amagul ñu jéem ko def toog xool loo xamante ne ni gars yi xalaatuñ ko ñu jéem a dox ci loolu Bantamba boo seetloo yaa quelques mois ci ginnaaw daan nañ yëkkati suñu télévision dem samp ko Kër Mbër def fa direct Bantamba boo confinement bi avant confinement avant confinement confinement bi mu amee ñuy def ay appel vidéo ak mbër yi avant yooyu am na ay innovation yoo xam du man kese nag parce que Bantamba c'est une équipe ça a toujours été une équipe et ça continue d'être une équipe boo xamante ne nii je suis pas le dirigeant moom mooy diriger Bantamba certes je suis un coordonnateur rek ci Bantamba bi mais diri kii diriger dëgg star bi dëgg réalisateur bi la muy Babacar Diagne Sir parce que balaa émission di am nañuy déggante mu kapi lu def mu ne ma moo lii ak lii ak lii la ñuy def wala mu ne ma moo lan nga xalaat ma wax ko ak lii laa xalaat des fois ñu def xalaatam des fois ñu def sama xalaat des fois ñu def xalaatu Bruno des fois ñu def xalaatu Lay Ndiaye xalaatu Sidi xalaatu Moussa MP Papi Dieng dabba groupe la équipe la des fois Père Bécaye bi mu nekk à la TFM fii la doon toog joxe joxe ay directives du def leen. mi ngi TFM joxe directive 2S. joxe directive joxe directive biir Bantamba def leen nangam. duñ ci teg baat dañuy dem defi ko te buñ ko defee àdduna bi ñëpp coow ko te pourtant am na émission mënoon na ko ci def mais xam na ni lii Bantamba moo ko mën a génne mu riche parce que Bantamba moo am archive yooyu Bantamba moo ko mën a génne Sénégal coow parce que Bantamba moo fekkee loolu kon noonu la demee xam nga ñu ciy créer di jéem c'est le Bantamba c'est le Bantamba c'est le meilleur barki Mouhamadou Rasulullah nii nga téye micro bi laa téye micro bi barki alxuraan mu ñëw directement ci sama bopp barki alxuraan ma def ba émission ba pare di jox delloo per Bécaye ne ko c'est le Bantamba père c'est le Bantamba c'est billaahi nii la ñëwee barki alxuraan préparé wu ma répété wu ma damaa jékki-jékki mu ñëw sama xel ma wax ko. noonu la demee doomu Grand Dakar la leneen li ma lay laajaat mooy sa diggante ak père Bécaye Mbaye affinité bi ci nekk moom mooy daw ci kër gi. wala ci bu ngeen dajee ci làmb la rek parce que dafa nekk loo xamante ne nii man je me dis que dafa naturel mais ñeneen dañ naan naturelul ci làmb rek la bon yamul ci làmb kase parce que Père Bégaye man rek sax du man rek man sax gënumaa nekk xaritam Père Bégaye ñaan ñi ñoo gën a nekk copain am Pa Modou dëggal Papa ak Petit Mbaye parce que ñoom ñaar ñooy doomam ñu ndaw comprendre nga ñii yi ñemee wax ñoom ci âge bi ñu am ni ñun bi nekk xale ñemee wuñ mais affinité bi c'est parce que moom moo ñu ko tijjil moom moo ñu tijjil moom moo ñu may fit moom moo ñu yaatal ci boppam tey am na ñoo xam dañuy nekk ak seen papa ragal seen papa duñ ko xool bu seen buñ séenee seen papa di ñëw ñu daw jug daw dugg ci biir ju seen nekk ñun buñ séenee suñ papa di ñëw ci lay daw gàttandu ju ko buñ séenee otoom di ñëw ñu jug taxaw bu ñëwee ñun nuyu ko kaf ak moom affinité bi ci biir kër gi la ëppee ko ci télé bi li ñuy def ci biir kër gi ñemewuñ ko def à la télévision buñ ko defee nag ci lañ naan tricherie la parce que ci biir kër gi dafa naturel day wax benn affaire ñu werante day wax ñu wax benn affaire ñu ne ko père nag xama lan la may ñu rek nag ñoo la ko ñaan wax suñu xalaat. yow ak Pape Sidi Fall da ngeen doon def seen bantamba ci kii bi jékki-jékki ne ko léeri tigre fi mu toll nii dafa katarak ndax père mi ngi TFM ba léegi mi ngi TFM ba léegi wala. bët bi boobu mu ngi woon TFM bëtu tigre bi kataraagoon parce que temps yooyu ngi woon ci confinement kenn liggéeyul 2STV rek la yàlla mayoon yàlla moo ñu may ñuy liggéey di génn di dem di def ay affaire bon bi ñu ko wax bi ñu ko waxee loolu c'était parce que dañ ko xam te dañu xam ni Père Bécaye warul am émission ci télé déedéet dafa war am télé. parce liggéey na ko. parce que liggéey na ko ñun boobu loolu lañ doon wax te boobu yàlla xam nañ dañ doon foo di ko waxtaanee ne ko ba ba ëy na bët bi moom gisatul fan yi da ngeen war a dellusiwaat ci kër gi. da nga war a dellusiwaat ci kër gi ñëw liggéey boo ñëwee loolu ndekete ñun biñ koy wax suñu patron mi ngi ñuy seetaan alaaj Njaay ñu wax ko ba pare affaire bi ñëw ci boppam mu ne mais li xale yi wax dafa dëgg la ah, dafa garaaw fekk na nekkoon na ci xelam te mook paa loolu xëy na nekkoon na seen wax. mais yàlla antalu ko antulu ko woon antuwul mais léegi nag yàlla antul ko fii nga xamante ne nii fii la ñoree yàlla sunu borom dogal nag loolu ñu doon wax mu réussir alaaj begaay ñibbisi fi nga xamante ne mooy 2STV moom en personne mu ñibbisi origine SA ñëw jël li nga xamante ne ni loolu la yoroon doon ko gérer comprendre nga macha allah place ba mu nekkoon mu ñëwaat nekk fa mais du loolu kase dafa ànd ak. ci place bi mu nekkoon dafa ñëw jëlaat ba kon new bu jëlee Bantamba yow loo jëlaat. donc Bantamba xam nga nag sant nañ yàlla ba bantambaa nekkee émission jékki-jékki doon télévision. doon bu bees. bu tudd Bantamba TV. Bantamba TV léegi biir 2STV. Bantamba TV mi ngi woon ci biir mi ngi woon ci bouquet IPTV bu 2STV bouquet bi Bantamba TV moo ci nekkoon sport sport sport spor sport musique 2S ah euh, al al amin TV bari na mais Bantamba TV lañ ci génne jox ko âge Bécaye Mbaye mu nekk la directeur président directeur général moo ko moom moo koy gérer ci digganteem ak frère am El Hadj Ndiaye El Hadj Bécaye moog El Hadj Ndiaye ay doomu nday lañu ay xarit lañu ñoom ñaar bokkul lépp parce que El Hadj Bécaye am na lu mu liggéeyal El Hadj Ndiaye El Hadj am na fu mu indi âge Bécaye comprendre nga El Hadj Ndiaye wane El Hadj Becaye mais El Hadj Becaye dafa am lu mu liggéey lu tax tey jii nag wax dëgg yàlla mu représenté loolu mu am loolu foofu ba tax na télévision boobu ñuy wax Bantamba TV c'est officiel jox nañ ko El Hadj Ndiaye mais beneen information de taille bi ma la ciy jox dama ko waxoon yaa quelques jours sam papa xuloo woon ceeg man waaw xuloo laa lay wax de. waaw dañoo toogoon sama daral ma ni Oeil day ñëw 2STV ak Bantamba TV. sa mbaam ne ma ku la wax loo loolu yaa sot tey mi ngi ni information bi ñëw na Oeil du Tigre rejoindre na Bantamba TV Tafa Gueye démissionné na à la TFM ñëw na fi nga xamante mooy Bantamba TV di liggéey si émission bi war a jàll Bantamba TV en même temps di jàll sur la 2STV ñu nekkoon nag ñoom à la TFM liggéey fa liggéey bu rafet liggéey fa liggéey boo xamante ne nii liggéeyu frère entre frère lañ ko doon liggéeyee parce que ñoom ak Youssou Ndour ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoom ñëpp ñoo far ñoom benn lañu Youssou Ndour suñu papa la suñu xaritu papa la te xam nañ moom fi mu teg suñu papa te xam nañ aussi fi ko suñu papa teg comprendre nga mais loolu la yàlla dogal yàlla suñu boroom dogal ñoom jógee nañ foofu léegi nag rejoindre nañu Bantamba TV te pare ñu de. mais man li ma ci xaw a jaaxal mooy comment se fait que yow defal nga sa bees Bantamba TV mais nga jël émission jàmbur nu ngeen def ba jël banta ba jël Oeil du voilà Oeil du Tigre ce n'est émission boo xam TFM ñoo ko moom. déedéet Oeil du production extérieure la woon production boo xamante ne da koy produire à l'extérieur nga indi ko Oeil du Tigre li muy daw TFM yëpp BMTV moo koy produire. Bécaye Mbaye TV Bécaye Mbaye TV Pa Modou ak Matar Mbaye ñoo doon produire Oeil du Tigre ak Cheikhou Alpha équipe bu BMTV ñoom ñoo doon produire Oeil euh, du Tigre ñu koy produir foofu à la tey nag yàlla sunu borom dogal na am nañ seen équipe bu bopp boo xamante ne nii wax dëgg yàlla am nañ seen télévision bopp boo xamante ne nii moom ñoo jël équipe bi. ay di Tigre production extérieure la woon Mbaye faal moom moo ko moom ak mu Moustapha Gueye ak HBK mbay ñoo créé entreprise bi parce que du woon TFM moo doon fay Père déedéet Œil du Tigre moo doon fay Père Bécaye comprendre nga li ma lay wax. ñu bari nag pour ñoom Père TFM moo dafa mel ni yow da nga am sa émission boo xamante ne da nga da nga may jox man ma dem tournel la nga am ci sa sponsor nga bëgg mu daw BP Actu boo ñëwee da ngay ñëw indi produit produit fini nga indi boo xamante ne defar nañ ko mon filmé nañ ko monté nañ ko ba pare nga ñëw teg. division ngay daw division lu la télé bi laaj sponsor boo indee sponsor moom 40 yow 60 pour cent. comprendre nga ñoom Ousmane ñoom ñoo doon fay télévision bi pour seen diffusion di fa jaar mais nekkul woon loo xamante ni TFM moo doon fay age Bécaye demeewul woon noonu mais nag c'était une collaboration professionnelle c'était une collaboration entre amis c'était une collaboration boo xamante ne ñu bokk ndey ak baay ñoo ko collaboré woon muy père Eudu ak Youssou Ndour ak équipe bi fa nekk yëpp ñu leen di féliciter di leen ñaanal sunu borom defal leen jaam mais li ma lay wax mooy Bantamba TV pareeguñu te te am na ñeneen ñu war a ñëw. am na ñeneen ñu war a ñëw en tout cas bu ñu dëkkee Grand Dakar dëkk ci ah, taatu stade Demba Diop bu bu bu làmb neexee wala suñu xol neex ci làmb c'est grâce à lui ndax bëri na ay archives yoo xamante ne def na ko ci làmb mais moo Bantamba TV nekk na chaîne boo xamante ne nii su ma la déggee baax lay doon. ah généraliste lay doon on va on va tout faire mais des yoo xamante ne ni Sénégal c'est Sénégal en miniature lañuy am ci suñu chaîne boobu lépp Sénégal lay doon. lépp Sénégal lay doon liggéey jéem a jaay sunu culture jaay sunu tourisme jaay sunu lépp te ci chaîne boobu incha allah dina ci am c'est une télévision c'est une télé qui a un vision. Une télé qui a une vision. télé qui a une vision. télévision la ñuy wax mais Bantamba TV c'est la télé qui a une vision te sunu vision fi mu jëm sori na. ñaan yàlla laf cet may ñu ñu yeggali mu mottali moo may ñëpp ñu yeggali ñu ngi koy ñaan mu may ñu ñu yeggali ci barke Mouhamed ñu wane li ne ci ñun dafa am yu nekk yu xew dafa am yu bees yu am la télévision dañu la 2STV nous a fait aimer la télévision yow la 2STV t'a fait aimer la télévision kii filmé man ak keneen ak keneen mais léegi Bantamba TV nag doit confirmer mi nga xamante ne 2STV def na ko mais ci yeneen anam ci ay programme 100 pour cent Sénégal cent pour cent Sénégal pour confirmer cent pour cent Sénégal pour gën a dëgmal beneen liggéey boo xamante ne nii ci xolu sénégalais lay dugg Modou Mbaye est-ce que làmb ji tamit fi mu toll nii ak jafe-jafe làmb ji Bantamba TV ñëw est-ce que jotul ngeen woote wàllu pour état bi ñëw dugal ci loxoom. état bi dina ñëw dugal ci loxoom ñëpp dinañ ci dugal seen loxo parce que dañ toll ci benn période boo xam dafa xaw a metti muy période ñoo nekk ci période Covid en ce moment le dafa nekkoon au stop mais mi ngi am reprise nànk-nànk gars yaa ngi commencé waat nànk-nànk mais bon di ñaan rek yi on l'a toujours di chaque émission bu ñu def ñu wax ko si di wax nguur gi ñu bàyyiwaat loolu xel bu baax a baax te ñu xam ne xale yi nga xamante ne ñoom ñooy def làmb ay xale yu seen famille yaakaar lañu xale yi nga xam ñooy def làmb ay xale yoo xamante ne ñun ñii dañ leen a yaakaar parce que dafa am foo xamante ne war nañ fa mën a yegg comprendre nga mais Bantamba TV dina am lu bees lu mu indi ci làmb parce que déjà Luc Nicolaï signé na ak Bantamba TV beneen information laa lay joxaat. kon mën nañ jàpp ni Bantamba TV fi mu toll nii dina takk rëpp ci. Ama Baldé ak ki nga xamante ne ni moom mooy Modou Lo. Ama Baldé Modou Lo exclusivité sur Bantamba TV. booy ñaar Tapha xëy na sur la RTS lay am parce que Leewtoo moom moo ko signé mais Balla gay Gris Bordeaux exclusivité sur la de sur Bantamba TV. lamb bu fi promoteur bu suñewul ak RTS tëgg Bantamba TV moo koy wane incha allah. li ma fekkee ci làmb mu neex lépp stade Demba Diop la xewee ñu tëj ko trois ans ubbi wuñu ko. arène nationale Modou Mbaye Boy Niang numéro 2 rek moom moo ko feesal digganteem ak Lac de Guiers numéro 2. est-ce que jotul ñeen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci làmb ngeen jug xeex loolu ndax ñu defaral leen stade Demba xeex nañ ba sonn mais nekkul waa làmb kese ñoo war a xeex parce que stade Demba Diop man si li ma fekkee falaa laa seetaanee Cheikh Sarr bu waagu ñaay magu Petit Sarr magu boobi xam nga boobi bu jangalaa boobi boobi bu jangalaa bu jaon bu jaon bu ngelaw tamit parce que kade ngelaw la fubal li mu defee ci gone daa bari sax ñetti at nga teg lu ko di ko jël coupe yàlla ko may mu ànd ceeg benn coach Janvier Fall sama nijaay <laughs> yàlla na jàmmam yàgg Jean comme naa nga yow yow yow yow day neex parce que yi ngay wax dafa doy waar mais gara eh, Stade Demba a footballeur yi handballeur yi basketteurs yi mbër yi lutteurs yi ñëpp le monde sportif sénégalais ñoo war a jug ñu wax ci stade Demba Diop parce que le temple du sport fala Sega Sakho footballé fala Roger Mendy footballé fala sunu papa yi ngay dégg yëpp toj. kon nañ bàyyiwaat xel li nga xamante mooy stade Demba Diop le ministre des sports ñu koy wax mu may ñu ñu koy wax ñu koy wax mu mu jàppale ci loolu bu baax a baax a baax stade Demba Diop ku ñu ko defaral defaral nga sportu Sénégal. Stade Demba Diop ku ko defar defaraat nga sport Sénégal parce que sport Sénégal dëpp bi Stade Demba Diop yàqoo la sport Sénégal yàqu championnat Sénégal neexatul bu làmb Sénégal neexatul. vraiment mbégte la woon ak contentement jàkkaarloo ak yow parce que tu es mon comme ni nga ko waxee ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñi la doon suivre à travers Lutte ak BP Actu. kontaan ci jàkkaarloo ak yow parce que ñoo bokk fi ñu dëkk. kontaan ci jàkkaarloo ak yow parce que Grand Dakar nga dëkk xam nga sa bopp am nga fulla am nga fayda te xam naa la xam naa koñ. may xeex de xam naa la xam naa koñ mi nga dëkk. comprendre nga mais nii la lu gëm ko kenn moomu ko. billaahi Père Lamine Samba moom ko waxoon bi ma koy wax ma naan waa kii lu lan la ñuy moom ak lu dul moom fii jafe pas compris kenn moomu ko. te doo star bi kii moo star bi parce que kii bu tëjee bët bi fay kenn dootu gis kenn dootu dégg. mën ngaa wàcc ba ci suuf. mën ngaa ba ci suuf téléphone ya dootoo jot appel ya kon kii mooy star bi nañ recevoir ëmbal yaa ngi ci yoon bi yàlla na yàlla jàppale la yàlla nga am ci liggéey bi lu ñu ci amul ci barkib Serigne Saliou ñu ngi la koy ñaanal mu jóge sunu biir xol BP Actu ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen kontaane di nuyu sama frère bi nga àndal Mourid Sadikh bi maa ngi koy kontaane aussi di siyaar buzz bu Lutte TV sama frère la maa ngi koy nuyu équipe bu Lutte TV yëpp maa leen di bégge di ñaan yàlla sunu borom def jàmm ci àdduna def ko si Afrique def ko si Afrique def ko ci Sénégal mais aussi def ko ci dëkk yi wër Sénégal parce que jamono yi xaw na doy waar gis nañ li xew Mali les jeunes se sont révoltés l'armée jóg am taxawaay bu fa am message la nag message la de message la ci kilifa yi nga xamante ne ñi ngi ci seeni dëkk te yërëmuñu waa dëkk ba message la ci kilifa yi nga xamante ne ni ñi ngi ci seen dëkk te joxuñu cër waa dëkk ba.